pale lépp loo xam ni moom moo di actualité lu jëm ci làmb rek mbokk yi ni leen ko toppal waaye jëmm ji ma jàkkaar lool kenn dootu ko présenté bu ñu ko waxee di Mor Diarra ah borom ndel bi nga xam ne bari na ay émission yu bare bare bare bare heure bi daaw man ak moom ak ki nga xam ne moom moo di Feuz ñoo fi nekk doon doon ci liggéey ci moom liggéey bu am solo def ay vidéo yoo xam te ni sénégalais yu bëree bëri ba dañ ko doon laaj mooy borom ndel bi mooy kii tàpp ndel bi rek di dóor ak yooyu xam ngeen ko dégg ko waaw mi ngi wone gis nga ko kaw ak jo paretu màggal gi bi nga sole woon kii bi bàyyilaat ba xam nga yooyu bëree bëree bare bare bëri Mor maa ngi lay nuyu di la ziar waaw bisimilah auzu billahi mina seytaane rajim ku nekk maa leen nuyu di la fay di la fay yow tamit si dérangement bi xam nga yéen ñëpp maa leen nuyu di sant mbokk internet yi di nuyu ñëpp di sant sama yaay bu baax a baax a baax di sant sama mag Tonnerre di nuyu sénégalais yëpp waaw. Mhm. di leen di leen jox seen ma wàcc waaye di leen masawu ak tàngaay bi metti na trop. Mhm. waaw mooy loolu. Mhm. waaw xam nga loo tàmmaloon gars yi muy présentation bi. waaw présentation bi mooy nii. du bënn du bënn barki sëñ Bamba. du metti du métti màggal gi jub si na day gën a neex rek. problème bopp doo ko am te bopp bay métti. doo faral di daane su ma doon am problème bopp dem naa bu yàgg ndax ba mu ko dalee tàpp léegi yàgg na du at yi sax. Ah. waaw yàgg na ndoxu siti ba yàqu. <laughs> ndoxu siti ba yàqu kañ. foo ko dóor kañ mu yëg ko. du ay montage gis nga ko Issaoui ba def ko. waaw yow gars yi xamee loolu sama solo gaal la borom moom ko berneel. Mm-hmm. du Ama mooy borom nii. Mm-hmm. Ama mooy borom Ama mooy borom nii moo ko moom Ama Dia ñëw yoot ñu yóbbu bës bi yëpp man nag maay borom ndel bi baal ma yem sama ndel. waaw <laughs> ñun ñun ñun ñoo ñëwaat barki démb Ndiaye nga indi mbër. maa ngi dégg ci benn vidéo ñu naan defet du dëj. waaw defet du dëj defet du dëj. waral defet du dëj. defet du dëj bi mooy sama mbokk yëmbal laay waxal rek. Mhm. parce que fii da nekk yëmbal. da ngay entraînement guddeeg bëccëg xam nga am combat du la jàppale. te soo daanoo ñu ne du mbër sa wul du mbër daa war a bàyyi bëre fii daal yëmbal kenn xamul ñun ban ban yëmbal la ne fii yëmbal boo fi daanoo nee nañ du entere ne entraîné ŋaañi nan la fàtte nañ ne yow mas ngaa daan bër ñoom daal kuy daan lan àndal mhm. moo tax boo fi nekkee nii del góorgóorlu defet bu ko yàlla tegee nii yow sax dootuñu la nawloo si mbër boo waxee ñu ne du mbër mhm. daa yaafuus mhm. mais loolu kenn du ko supporter mhm. man damaa jàpp ne yëmbal sportif dëkku fi ba si ay laamu tonnerre da nga koy da da ngay xam ne fii sportif dëkku fi dégg na lu ne grand bi nii grand bi naa te keroog tonnerre ku ko gis xam ne dafa entraîné ba wow koŋu ñëw bëreeg lu bett booy bi booy bi keroog sax moom ba mu toogee dafa dafa ne làmb mbër la barki mm. Seydina Muhammad mm-hmm. billaay wallaay wa taalaay mm-hmm. tonnerre kenn daa ko bëree bi mu daanoo bett na la de bi mu daanoo man am naa betteel ndax làmb ji nii moom fi ko tegoon wat dëgg yàlla musu teg làmb entraînement yi guddeeg bëccëg jël ko au barki seexul xadim ku dee ak sa bàmmeel man moom ñoo bokk gaale su néegi ñoo takaloo mais jendalatul fanaanatul da nga koy xool sax yërëm ko mm-hmm. barki Serigne Touba moom li nekkoon si xolam yëg-yëgam mooy daan Tony Junior ñëwaat si si tonnerre ku ko xam xam ne daa naqare utal adversaire mhm. booy ba léegi nii tonnerre a ngi siy tolof tolof mais mhm. booy yabuñu ko de barki seexul xadim yabuñu ko de du ñeexu ñebbe kenn mhm. barki Seydina Muhammad mu nekk tamit jàmbaar nekk euh, Baye nekk nit koo xam ne bu bëriwul kenn du ko dégg si dara dafa maandu dafa yaru sama yaay ji ko sukk jur sax da koy xool ba si yàgg mu ne ko yow tonnerre doo mbër parce ni nga yaroo nii damaa jaaxal mbër mën na nekk fii si kër gi barki Seydina Mouhamed ngay reyanteeg nit yoonam du si nekk mhm. mën na fekk fii am ay gan mu wiiri jaar beneen bunt bi bañ nit ñi gis ko dafa am kersa mhm. barki Seydina Mouhamed suñu borom nattu na ko si làmb mais yoru sax xolu mbër mhm, boo ne ko diw lii laa mu ne la bàyyil diw du jëw du fen du nettali te du toog fu koy defee sama mag la nag tagguma ko nag mais moom jikko jum yor man yoruma ko man moo ma gën fuuf moo la gën a fuuf barki seexul xadim xool ah yow da nga bëri përti përti non man dama bëri birti birti dama rambax dama kii te mbër lépp ma dal lépp mhm. au calme la koy defee mhm. tey ji man yow nan waxante dëgg rek yow tey ji bu nee la kii raqu la ak rambaxaayam da nga naan déedéet mhm. bokk ñu dara ah, yëmbal la demee nag waaw mu jaaxal leen waa kii moom eh mbër ak ni mu yoro mais mbër moo ko binde noonu moom waaliw la barki seexul xadim man buy bëri nii sax dama koy ñeewantal ki ñaan gi mbëri yor mhm. dese ko yor moom xol bi dafa rafet mhm. barki Seydina Mouhamed mu nekk jàmbaar doo ko gis bu bëriwul kenn du ko dégg si dara mhm. tonnerre mosoo koo dégg mu ànd ak politicien mhm. tonnerre mosoo koo gis mu ànd ak ay autorité mhm. moom ru xam lay toog su bëriwul nekk si li mu nekk gérer ay chantier su amee combat dem bëri ji ah, entrepreneur ah, entrepreneur la waaw chantier day gagné ay chantier lu rafet lay liggéey macha allah boo ko fekkoon si maçon bi sax da nga naan kii du tonnerre maçon la gën a mën kat mooy loolu mm. bëre ah, maçon la a mën mën na tabax jàmba yoo xoo barki crédit mutuel foofu nga taxawoon moom moo ko tabax crédit mutuel bi barki Seexul Xadim jàmbaar la barki Seydina Muhammad di woo di wax waa Albouraa ngir yàlla ak jëmmi Serigne Touba. bu fekkee ñoom ay taalibe sëñ Babacar si leen rek te yàlla tax maa leen di ñaan ñu tëggal mbër combat taxawu ko parce que tonnerre. am na tur boo xam ne si làmb tey jii nit wóoru koo fàtte jàmbaar la mhm. barki Serigne Touba Mbacke te fan nga xam ne tonnerre daa bokk si làmb làmb ji kan moo fi turandoo tonnerre deux ñaata lan fi tey jii boo fi deful woon dara benn booy du la jël di la tuddee sa bop mhm. mais tonnerre benn mbër ëppalew ko turandoo ah, kon nan gësu tonnerre waaw waaw ay bébé tonnerre bari na waaw ay tonnerre bi nekk jaamu gën bi gaañu bu yàggul ak yooyu mhm. bari na mooy loolu kon nag gars yi nañ ko gëstu jaabalo ko muy Makan Mbeng muy Albouraa muy Fallou Ndiaye yéen ñëpp maa leen di ñaan ngir yàlla jëlaat benn xale rek bu bu ñëw rek moom mbër instant bi lam làmb mooy liggéeyam xale bu ñëw dina bëre moom si kàttanu yàlla état bii nii mu yor ñu dañoo bëgg balaa état bi ay wàccaat mu amaat combat bu rëy daan si kàttanu yàlla ba mbaaxam Tonnerre Sokh noo c'est que Pikine la quoi. waaw ah, Pikine la waaw. Mhm. Tonnerre Sokh Pikine la quoi mais Tonnerre Youssou Ndour jaaru na. Mhm, Youssou Ndour doomu daangu mhm. waaw loolu loolu neex na. mais ki daan Pambaay keroog moog mbër la. ki daan ki daan kii ni daam seen. Pambaay kooku moog Tonnerre. làmb dàqu ko waaw làmb dàqu ko. Ah, doomu daangu mi ngi fi amagul combat. moog Tonnerre làmb dàqu ko. moog Youssou Ndour moog Youssou Ndour waaw moog Youssou Ndour a taxaw. waaw kon mooy loolu. nan ko xoolal daal si booy weex yu safi daal. mbër mi ngi fi moom bëre mooy métier ku ko jox baax na. moom wala wala tamit yow lay jox moom jox na ma relève bi ba pare moom wax dëgg yàlla barki Seydina Mouhamed moom da koy wax sax danaan man li ma dese si làmb bareetul des na tuuti sama raq ji laay gunge. waaw kon nag man yàlla na ma yàlla kàttanal. dooleel ma xam nga tamit gars yi tamit ñun tamit teg ñu loxo jàppale ñu. làmb ay defet yi ni nii nii du ay dëj. ay nit am na defe nii entraîné wul affaire yooyu nag ñun sport la man maa ngi entraînement guddeeg bëccëg barki Seexul Xadim damay dof barki Serigne Touba billaay wallaay wa taalaay barki Serigne Bamba damay tërën yow bi yaay tërën barki Cheikh damay entraînement non instant yi moom dëgg moom ku dee ak sa bàmmeel moom ba ma bëree ba léegi moom si combat mbër bi la nekkoon gëj naa dem tërën moom wax dëgg yàlla ku dee ak sa bàmmeel waaw non non motul weer de ay ñaata rek deux semaines te instant taluma ko sax ndax màggal gi wax dëgg yàlla lépp fee lan lan ko ñukk ba màggal gi jàll waaw kenn du rey <laughs> wërsëg sénégalais yi doon nañ ko laaj ana wërsëg wërsëg wërsëg wërsëg moo ngi fi wërsëg moo ngi fi instant bi nii man kañ sénégalais yi laay ñaan xam nga ñu jàppale ma ñaanal ma ma tax wërsëg parce que il est l'heure quoi âge maa ngi bëgg a âgé quoi tamit maa ngi bëgg a doon kilifa mhm. waaw gis nga mu mhm. xam naa bientôt yàggatul dara rek incha allahu rabbi di ngeen dégg mariage bientôt ak dof bi borom del bi borom del bi ak wërsëg foofa toj waaw <laughs> kenn du la wax <laughs> kenn du la wax waa lambaay ñëw xew ko ba mu neex nag waaw billaahi. <laughs> mais be gars yi tamit des fois ñu seeta say vidéo ci feeraay bi yàgg sa maam daam coow li. waaw waaw maam daam kooku moom ndeysaan day jii laa koy wax sénégalais yi moom yàlla moo ñu boole. ndax tamit jàmbaar la quoi bu ko neexoon tamit suñ borom tamit waxoon na man damay siiw mais si loxoom la ko jaarale. moom moo jékki-jékki ubbi compte compte TikTok am affaire yi di neex di saawaan baawaan wax dëgg yàlla man ma sénégalais bu ma xamee na lu mu si joué mu nekk booy bu baax booy boo gisee noonu mu may de de mbalak noonu sax affaire la ay affaire da kaf ma ko yem ma fii fii la may yem mais moom la wax dëgg yàlla li gars yi di gis noonu ma koy may dund moom sax amut ku ma la nii rek vidéo wooy la ñuy bëgg mu neex mhm. mais maam daam tamit di ko ñaanal jàmm ak salaam njàmbur njàmbur yëpp maa leen nuyu di leen ñaanal moom jàmbaar la borom baax la mhm. maam daam xale bu neex a maafe la du tonni soos nga ne xale bu a bokkal maafe du tonni soos waaw xam na fi mu war a yem kenn du la wax <laughs> jàmbaar la daal maa ngi koy ñaanal jàmm ak salaam. <laughs> mais nga defoon salade boo xam te ni Sénégal yëpp dañ ko doon bàyyi xel mooy ci bi nga bi nga Ah, hôtel arc-en-ciel ah. ah hôtel arc waaw waaw boobu noonu Manga ndeysaan Manga léegi ndeysaan maa ngi koy maa ngi koy nuyu wax dëgg yàlla maa nekk ma nekk mbërëm nekk léppam mais léegi nag instant bi nii mooy yooyu de bàyyi naa ko de ngelaw léegi yooyu noonu. ay doxat yeeg non bàyyi lépp léegi. dama âgé quoi gars yi ñoom woo ne ma moor kilifa nga. waaw ma def sama bopp kilifa tamit. yaa ma gën a xam kenn du la wax détails yu bari léegi duggatuma si gars yi sax gëj nañ maa gis ay rambax rambax ak përëx përëx léegi. moo ci jàkka ko léegi dëgg yàlla kooku moom su ma ko bàyyee moom wax dëgg yàlla dem jumaa dem di ko waaye nii su ma demee su ma ko bàyyee. Mhm. jàppal ne damaa àddina. Mhm. wala mu jugee Sénégal fii yëmbal. Mhm. wax dëgg yàlla mais sax matin yaay ji. waaw loolu man du si man yàlla moom ko séddee. yàlla moom nga yeewu quatre heures du matin yeewu chaque jour. su ma demee ubbi jumaa ji. defar li ma war a defar raxas duusi bale fobeere loolu man du si man ndamoo ma ko. yàlla moo ma ko may. tey ji man sama jëmu ji ak ni mu xeeboo ak ni mu ni ma dofee te yées tey ji ni boo fekkoon Mor Diarra boo fekkoon nit mu toog nga ne ko Mor Diarra day nettoyé juma mhm. danaan la amut man tey jii ni am na mag yoo xam ne dañuy ñëw si jumaa ji nii pour julli dem mais ñoom bu ñu gisee may ñëw di nettoyer ñoom dañuy am lu leen bett seen live mhm. mais man loolu ndamoo ma ko mhm. yàlla moo ma ko sédd chaque jour chaque jour su ma ko su ma ko ratee damaa dem màggal Tuubaa wala ma dem ba Bawal barki Seexul Xadim billaay walaay wa taalaay nekkul quatre heures du matin billaay wallaay nekk man magan xam nga la bëggoon man nii ma la ko expliqué sax neexu ma xam nga la laa bëggoon quatre heures du matin nga fël song si ma man jumaa ja waaw man nag du si man sax yàlla ko jox man bu ma tëddoon trois heures du matin sax quatre heures bu jotee heure nettoyé juma heure boobu jotee damay yeewu. man yaay caabi ji wala ji waaw mi ngi si man. ma demee man maa ko ubbi defar ko ba mu jekk mooy loolu man loolu ndamoo ma ko damay dem damay nettoyé juma ji ba si yàgg sax. ba julli fajar par des fois damay nettuwaay ba si digg bi sëgg tuur xéewal li may tuurloo xéewal mooy maanaam man tey ji li ma yàlla jagleel ni nii nii nii am na milliardaires yu ko bëgg ñu ko man tey xeeb ma sama bopp milliardaire laa ndax loolu noonu ku ko am yow xooloo milliard ah, xooloo ah, ah, milliardaire ak pas-pas yi paa yi tamit paa pël yi ma bokkal fii tamit ci jumaa ji jàppale ma bëgg ma wax dëgg yàlla ñoom dan may ñaanal ba ma naan man ñaan gii nii sax baa du ëpp si man barki Seexul Xadim di yëkkati xaalis si man di yëkkati xaalis di ma jox di ma defal lu ne te man lan moo ma gën a neex si nettoyé jumaa ji mm-hmm. papal yi nga xam ne xamuñu Serigne Touba mm-hmm. ñoom danoo dem ba naan ma Baye Fall mm-hmm. man loolu moo mu gën a neex si affaire yi. ñoom mm-hmm. dégguñ xamuñu luy ay affaire murit ak yooyu de mais Baye Fall lan may woowee. Mm-hmm. waaw parce damay am kersa di leen ko wax parce tamit làmb yaa ma gën a xam ay imaam ak yi mënuñoo wax si làmb da leen sonal. Mm-hmm. parce làmb ñun xam nañ lépp ñun nekk nañ si mais du lu nit ku baax di ñaan. Mm-hmm. waaw mm-hmm. wax dëgg yàlla noo ku dee ak sa bàmmeel si làmb la ne mais làmb dafa araam du nit ku baax lu mu war a ñaan. Mm-hmm. ay imaam yii seen yoon nekkul si làmb. làmb du lu baax. dëgg deexul. suñu bëgg-bëgg la nag yàlla moon si nattu. waaw. wax dëgg yàlla mais làmb du nekk loo xam ne ay nit ku baax kilifa warul jël kursam naan day ñaan si làmb. non ah, non kon dem na màkk. xaalisu làmb waaw mais tamit noonu rek nga mën a def boo si demul màkk nooy def. ut nga ko kañ ba am ko ko si mais ñun ñëpp xam nañ xaalisu làmb nu mu demee lu nattu rek. lu mu bëgg wax na jumaa est-ce que. ah doy na waar de. de gisaguma tamit mbërum làmb mu jumaa Sarko da joxe seen jumaa yi koñ un million oh yàlla na ko yàlla fay balaa négé ni déwén yàlla na am lu ëpp un million Zarko loolu nga def kontaan naa si man jumaa ku si liggéey rek damay kontaan si yow mm-hmm. barki Seydina Mouhamed Zarko loolu nga def yàlla na la yàlla fay si barki Cheikh Ahmadou Bamba mi nga yaakaar tey ëllëg mm-hmm. billaay walaay def nga ko ren déwén di nga def lu ko raw barki mm-hmm. si waay def yàlla nga ko defal <laughs> ak yonent man def ñun ay nit yu baax lan mhm. ay nit yu baax lan làmb nattu la làmb nattu la mais suñu xaalis boobu rek lañ si mën a dugal mënuñoo dem sàcc wala ñu def leneen mais tey ji bu ñu yàlla mayoon xaalis bu gën a leew tamit moo dàq ñu def ko si mhm. waaw mais tamit la xaalisu làmb rek lañ si mën a dugal parce que si ci làmb waaw sama avenir si làmb man instant man dootuma si wax quoi parce que lépp mhm. tonnerre ay ñoom góore ñoom ñëpp ñoom nee na instant bi bul waxati ay ñoom ma déggeen miy toog ay am saw ay ñoom fàll ñoom ñëpp nee na bu si waxati sa carrière dinañ ko jël zéro ko ba mu rafet sa mag tonnerre moom nee na moom làmb moom dootu si xaar ma sàmba dootu si xaar ma demba dina ma gunge ba ñëpp dégg ma. kon man instant bi damay noppi. maandu bàyyi kook sama lépp fu ma wax aw fa ma aw fa fu ma wax yem fa ma yem fa. parce que mooy sama mag. du sama mag sax tonnerre xam nga sama lan la. sam papa la. parce que dëgg neexut dégg naa da ngeen rusante. doonoo sam papa la parce que dëgg neexut sam papa ba mu gaañoo ba léegi. barki Seydina Muhammad mbërëm ba ma nekkee xale bu ndaw ba léegi. mbërëm a yor. dal mu jëndal ma. tubéy mu jëndal ma barki Seexul Xaadim man lu amul du ma ko du ma tirisee mhm. boo ma laalee laal ko barki Seydina Muhammad te man xaw ma sam papa yow xam nga li ma lay wax bu baax mm-hmm. mosumaa gis sam papa mais man dama jàpp ne mooy sam papa mm-hmm. bëggul lu ma metti mm-hmm. te man imbécile la verentey colossar la par débat damay ñëw fii ko indil biir yi ne man su ma bay indil biir yi tonnerre tonnerre mu sedd xam ne tonnerre xolam a rafet rek mais bu ko nekkoon jël fiir noq ma ma day barki Serigne Touba def jikoy ma def barki Seydina Muhammad ah, mu sedd barki Seydina Seydina Muhammad jàmbaar ëpp la doole foofu su ko neexoon laa la wax noo ko ma ba wat nday sama coox yi barki Seydina Muhammad mais mosoo koo gis ma dépassé ko mu débordé barki Seydina Muhammad billaay wala wala ma nekk fii di bëri wax day génn kër gi dem yoonam ba mu giif mu ñëw di ma di ma neexal man mii di raxam te man man maa ko waroon neexal barki Seydina Muhammad ku baax la Tonnerre daal man yéenoo ma ko sax làmb parce que xoolam bi mu yor voyage yi wala voyage wu fi woon voyage woon na fi loolu yëpp ñu ngi si incha allah moom bentoo yàlla baax na ñaanal leen ko léegi dina demaat moom yàlla ko yàlla may sax lu dàq làmb man ba seexul xadim am na soxna waaw am na soxna waaw am na soxna moom ak soxna si ñu ngi nobante lu neex waaw waaw am na am na soxna su doj su moqu pooj wax dëgg yàlla mooy rey mbër de mbër moom rek la amee <laughs> am na soxna de wax dëgg yàlla am na soxna ba am na soxna su neex sax sama yoon nekku si na xaaral ma nopp am na soxna su neex su mool nag wax dëgg yàlla bu dee woon nii day xaar de bu dee woon mbër bu dee woon nii dama naan ko soxna si gaan du génn kër gi de. <laughs> Eh? damay seere njaboot gi de. <laughs> nga dégg ko mu jóge fi ak lammoñ bu taq bi kii moo ceegay ndeem ba ki sëñ Bamba <laughs> kii jooma yaame waay billaahi sama nit la non barki sëñ Bamba non jàmbaar la jàmbaar la wax dëgg yàlla jàmbaar la gars yi taxaw ay ñoom góor a yii góor a baa bërë bee taxaw kee barki Seydina Mouhamed nekkul émission bi mais nit tamit booy ànd moom da ngay muus mm-hmm. gis nga kii su ko neexoon moom may ànd ak tonnerre moom muy ànd ak di ma ji ma kii ak mbër di ma ji ma kii ak mbër mais moom defu ko saa su ma amee coow mbër bu sew da si saa su ma amee mbër ay coow yu sew yi da si taxaw góor a barki Seydina Muhammad nekk jàmbaar man xam ne ay rab laa man su ma demee bay coow ak mbër man wéru ma mhm. mais góor a mais da siy jàpp corriger ñu xam nga tamit mënu nga ñëw si kër jàmbur fekk fa coow nga xool noo ko taale mais góor a du ko def mhm. chaque jour day xool suñu diggante nu mu amee jàmm moo taxit moom yàlla na ko yàlla defal jàmm taawam sax stress bi ñaari defet yi mag rakk ñëpp a daanu. Mhm. xalaat gu métti gi. barki sëñ Bamba stress bi xalaat bu métti bi. ñaari defet xam nga tamit xajul si kër sama yaay sax daa xalaat ba jeex mais yàlla baax na xañ na yàlla na ko teggi. Mhm. waaw yàgg buusita. buusita jël na Amadia. man daal ñami ñami moom bu ñëwul ñu bëre wala Mass Bantamba moom wax dëgg yàlla instant bi nice. ñami ñami nga bëgg a bëree. ñami ñami day grand yof eh ñamu waagaal. barki Seydina Muhammad. Mor ñami ñami tapet nga. billaay wallaay wa taalaay fekk na ma fekk nga ma esaat yow yaa daw làqu si ma nuyu ma mais kanamu seytaane laa la indil nga daw ñëw nuyu ma. ñami ñami yow ngay tapet waaye ñami ñami lan la fi def ñun danoo mbapat ñami ñami dafa génn wax am wax ko tax a nekk mbër ñun mais ñun danoo fooy làmb làmb danoo ñëw si kër gi fekk fi ngembali fii nii ñun tonnerre moonu yar Amadou Camara ay Mbaye Guèye Junior ay alaaji lawbe bu mag ñun kon yow ñun làmb ñun nekkuñu si slip caay lan si. Ah? barki seexul xaddim ñami ñami su ma ko jàppoon benn voyage laa koy. da koy dërëj wala da koy dama koy. colonne vertébrale bi laa naan karek barki Seydina Mouhamed damm laa koy def. karek looy damm colonne vertébrale xaw ma nu ñu koy wax xaw ma colonne vertébrale xaw ma lan koy wax moom laa damm kàllit waaye ñami-ñami daa tàng booy nii ay tiktok moo tax ñu xam. mais est-ce que du ndel bi jooy noonu. ñami-ñami non du ndel du dara ndel bi ay sóobal la nii rek ndel bi du dara mais ñami-ñami dafa war a ñëw ñu bëre gis nga làmb moo amul yooyu di daw di laako di ut ay koo bëreel ku nooy ñami-ñami tàppet nga ñëwal ñu bëre toog Grand Yoff googu noonu di xulli sa naan doo xool fii ñëpp a ngi xool ñëpp a ngi xippi ñëpp a ngi gis yow yaa xoolut yaa ngi menacé ñami li may wax nii boo ko wet waaye yow ñami-ñami di tàppet man kii booy sax man waru ma woon toog fii di wax ak moom bay ñàq barki sëñ ma ragal la di billaahi ñami tàppet la barki Seexul Xadim ñami-ñami tàppet bu mag la waaye booyooyu noonu barki sëñ Bamba doy ñu ma sax gàllankoor. billaay walaay làmb tëre di yow xam nga làmb léegi daa am ku man am nday ak ku ma amul baay xaw ma nu koy waxee noonu a bokk écurie waaw sama fils la ñoo bokk écurie wax <laughs> yéen a ngi ñu ngi waaj waaw ñu ngi waaj mu nekk booy boo xam ne wax dëgg yàlla yàlla na ko yàlla defal jàmm may ko ndam mm-hmm. ak man bëreem mm-hmm. ak am dooleem mm-hmm. man nit du ma ko expliquer parce que booy bi dafa yaroo si man màggee si man kon Diop de man bu nee ma man buñ ko ëffaloon tey jii nii ak Balla Gaye si biir géew man damay gëm na Diop de moom du tiitam du du tiit du ragal parce que lan moo ko waral benn jour suñu kësi bi yanu nañu yóbbuñu ba wal fajiri fekk fa ay ngan di maamu séeréer laa la wax séeréer yi man ba ma demee ba gis leen damaa ruux mais Diop xam nga lu ma wax dof jàppal côté bii di yanu ma ko côté bii di yanu moo ne la Diop de ragalul nit si àddina bi te ku te xam nga la moo ma neex si booy bi dafa mën a daan ponkal Mor kankang la am nag de. barki Seexul Xadiim billaay wallaay wa taalaay bu borom soow mi ñëwee mu xam ne lépp dëgg la booy bi waa yëmbal dañ koo yónni te yaa xam ti ko barki Seexul Xadiim billaay wallaay wa taalaay dof la de Mor du xalaat de. bu bis baa barki Seydina Mouhamed ngeen tam Diop de dëmm billaay wallaay wa taalaay booy boobu nekkul ay cadre ni ma bokk ak moom yëmbal wala ni ma bokk ak moom Ikiri dafa mën a bëre pire bëre bi dafa nekk si yaram bi barki Seexul Xadim Diop de dafa mën a bëre ba pare am fitu dooma daan am fitu biir géew loolu mooy làmb lépp lu dafa kombale barki Seexul Xadim te fooyewul làmb. moom Mor nga jàkkaarloo ko dàq bëre. Mor mën na bëre mais Diop 2 moo ko dàq bëre barki Seexul Xadim. non du cadre ay ni ma bëgg supporter booy beeg mais Diop 2 dafa mën a kopp doole nga yaakaar. doole ji sax nit ñaa ngi naan ay Mor Kangam moo ëpp doole gis nga Diop boo ko gisee ak ndawaayam ak yaxaayam barki Seexul Xadim doole ji dépassé na noonu. foo meegar la noonu la demee nag barki sëñ Bamba mbër la mbër la de Mor bu jàppee ne amul combat mi ngi nax boppam de barki Seexul Xadim bala muy comprendre booy bi daan ko ba jéggi ko est dina yomb. ah du yombu de mais tamit job de tamit am na combat moom xam na loolu mais tamit barki Serigne Touba Mbacke ku jàpp ne Mor Kang Kang Diop moo ko man yaa ngi nax sa bopp mm-hmm. waaw. Mm-hmm. nañ dugal sa gars yi ñu ñëw comme tey waaw waaw waaw ambiance waaw mooy loolu waaw ñëw leen waaw dañuy ci waaw. bu ma déggee ñëwal. Mm-hmm. ñu ñu def ba mu neex. ah. Albura waaw loolu lañ war a def nag waa Albura ñëw. loolu kañ dañ koy non wax naa ko tegal naa la ko waa. màggal gi ñëw na ooteel. ma instant bi nii. maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. Cheikh Diop xéewal bi may dalal borom Touba. maa ngi koy sant di ko gërëm. kooku daf may jàppale bu dul làmb di màggal. këram laay dal. ñam wi nee na gaañu du si jege foo làmb dañ ndox. yàlla na ko yàlla defal jàmm. Cheikh Diop xéewal ak magam Baara. xam nga di sant yaayam di sant ay jabaram ak ñëpp seex yàlla na ko yàlla defal jàmm moom mooy jaay bool yi. Mm-hmm. fii bool ak baraada bu mu jaayul baaxul. Mm-hmm. yàlla na ko yàlla defal jàmm. di sant sama gars yi ñoom am saw góor a ma dëggeen sama umpaañ yi ñoom ngóone nday mari abi Diop abi Dieye ñoom ñëpp maa leen di gërëm di leen sant di gërëm sama maam sama yaay yi ma bokkal kër moom wax dëgg yàlla moom jàmbaar la man ak moom sax boonu boonu fekkoon fii da ngay ree ba tas waaw man ak moom ñoo yem esprit comédien la comme man bu fi nekkoon nii doo da ngay ree bay bëgg a dee wax dëgg yàlla maa sant ñëpp di gërëm ñëpp a ah, di gërëm Malo Seras. borom benn baraak. Malo Seras Malo Seras waaw borom benn baraak. Malo Seras nit ku baax la. dañ fay dem mu nuy conseiller. Malo bu ama nit ku baax la ak Malo 2 ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm. di gërëm si te sama xarit di gërëm ñëpp ma kontaan naa si yéen ñëpp. di gërëm waa Bawol yëpp. di wax vite fait nag. mooy loolu nag góorgóorul sa mbokk bool bool dina la teg loxo ñun yow boo nekkee mbër rek dafa mel ni ñun am nañ mbër parce que ñoo yaroo ndoo maagandoo bawal ngay représenté moom laay représenté yàlla na la yàlla defal jàmm mhm. ma dinaa ñëw taxaw si ba mu neex vite fait amal jàmm yow mhm. waaw yaa ma gën a xam